salaamaaleykum euh, waa internet yi di ñu ci Marodi TV je me présente soit du ñu gën ma xamee ci Nabou euh, dans la série Pot et Marichou maa ngi leen di nuyu nag yéen ñëpp di leen baalu àq bu baax. waaw Nabou nouvelle star de cinéma ñu bëggoon xam fan nga juddoo fan nga cosaanoo ba tey nga nekkam Nabu. man nag maa ngi juddoo Nouakchott je suis mauritanienne 100 pour cent. fan nga jàngee fan nga passé sa enfance. foofu laa def sama lépp. comme lan noonu genre foofu laa juddoo foofu laa màggee foofu laa xam quoi. nan nga def ba ñew Sénégal kon. en fait man série bi nak moma indi Sénégal. Hmm. ci naka nan nañ la contacter. en fait man Pod moné kon sama xarit sur Facebook ñu doon waxtaan après mo expliquer ma ma ni ko d'accord na ma may benn laps de temps mu waxtaan ci ak samay parents léegi bu ñu d'accord dinaa ko wax. d'accord nga passé sa enfance Mauritanie est-ce que mun nga ñëwaat tuuti naka nga ko dundee.

après ñu accepté pour moi. d' accord nekkee xale loolu doon faral di rêve da nga doon faral di rêve dugg ci cinéma wala. am nga yeneen ambition waaw dafa nekk sama rêve man nag biirum télé daf ma yàgg bëgg dama ko yàgg bëgg en fait. Hmm. kon jot nga fa nekk benn icône benn star foofu. star nekk guma star mais bon am na bam ñu ma xam foofu ñu bari mhm. xam nañ ma maa ngi woon ci mannequinat bi foofu xam nga rek lu xew rek ñu jéem ma si dugal. d'accord nga juddee foofu mais noo def ba dégg olof mel sénégalaise. ah mais Mauritanie lépp mu ngi foofu. am ay tout am amna ay olof amna ay bambara soni kenar ñepp ñu ngi fofu donc c'est normal ba pare man tamit sama famille amna ño ñoo xam nga séeréer yi olof lañuy ñuy té sama maam aussi séeréer la sama waa kër olof bi day ñëw rek jàll. d'accord légui tay nga dugg ci cinéma. comme mel na jigéen yu bëri tey dañuy bëgg dugg ci cinéma la moo war a nekk raison bi ñu war bëgg ci dugg. ñi war a. ñu bëgg a nekk actrice lan moo war a tax jigéen yi bëgg nekk ñoom ñëpp ay actrice bon ku nekk tamit ak li la ak li tax nga bëgg ko man sama passion la dama ko yàgg bëgg. neen tamit xëy na leneen moo leen ci dugal ku nekk dal ak li la tax a jóg. mais lan moo war a nekk raison bi est-ce que bëgg a siiw la wala yeneen raison. peut-être bëgg siiw la mais man moom dama ko bëgg dafa nekk ci man. d'accord nga nekk actrice euh, ci série pour et Marichou nga ci am benn rôle boo xam ne dafa xaw a doy waar. Mm. muy rôle jaxasekat seetaane nan nga ko tuddee. Euh, rôle bi moom dama leen di wax rôle ba ma neex la dama ko bëgg dama bëgg li may def parce que tamit il est temps nit yi ñu xamal leen vérité bi parce que da ngay ànd ak ay nit que mu nekk sa xarit mu nekk sa sa mbokk fekk du la yéenee jàmm hypocrisie dafa bëri te dañ koy dund xam nañ ko donc il faut que il faut que ñu koy wane nit yi mën a bàyyi xel bu baax ci ni ñuy confier xam ni ñuy def xam ni ñuy doxalee mën a moytu daal moytu dafa baax si nit. d'accord kon da ngay jouer rôle bi pour dénoncer. Mm-hmm. est-ce que amul aussi yeneen conséquences yoo xam ne dañ lay tooñ yu demee noonu. <laughs> bon parfois damay tase nit naan ma bàyyil ما هيش يبو سي سيام بايل جاخسي خمغ لول موم مونول نياك مي دنجي سانت يال ريك لول سا في دير كو رول بي نغي انكارني ريسير نغوكو مي دو فرال ام اي ديراباج يو ديمي نون خاو اوبل توري نو مان موم واخ دك يالا خاوما دي لي ني واخ سما غيناو مي لي بري وول ماي دنج ماي توغ ني فيت فيك ابري جيهنا

waaw dañ may contacter nit yi moom même boo deful dara dinañ la contacter donc euh, man daal xam nga man naa bëgg rek. Hmm, kon su ma su ma comprendre ñu bëri dañ lay woo téléphone yu demee noonu ko ah loolu moom mënul ñàkk boo nekkee jigéen moom ka nga siiw ak nga bañ siiw. Hmm. ñëpp dinañ la contacter ku nekk dina dina jéem a wax ak yow te loolu la ñuy ñaan yàlla parce que tey ji yow.

D'accord, est ce que tu as di proposition comme yenn footballeurs yi artistes yi da faral le non. ba parce que euh, fi ñu toll ni actuellement façon bu nek dinañ ko gis de façon bu aussi ñu koy comment ñu mais nit ki yow yaay xam li nga bëgg rek. kon célébrité bien sûr. <laughs> Hmm. ci bon domaine la musique ou théâtre bien ah <laughs> hmm. D'accord. aussi ni mannequin défilé yu avant C'est en fait dama ko même euh, je me rappelle quand j'ai def terminal beau-frère en fait kooku comme ma carrément que bon dama lay bàyyi nga dem nga defi man ki naa loolu laa mës a bëgg sama xol mais xam nga sama waa dañoo xaw a compliqué wu nag te tout tukkuleer yi ñoom seen doom ñoom tàmmuñu doom seen doom di génn di dem beneen dëkk wala dara te man kinaam dañ ko doon def Mauritanie mais doxul même fii aussi voilà man kinaam moom pour mu dox foo nga génn donc jukku dañ doon ragal milieu bi et te xam nga boo nekkee xale nga nekk jigéen surtout nga nekk ci famille làkkat dañoo bëgg seen doom yi dañ doon accepter mais au fond da ngay xam ni yii neexu leen te vraiment man ñaanuma yàlla def loo xamante ni neexu sama waa kër bi ma demee ba ci biir ma xam ni bëgguñu ko dama ko bàyyi mais man loolu laa mës a bëgg loolu laa mës a def. mais nga bàyyi ko loolu neex na la wala neexu la. ah neexuma woon nag franchement <laughs> mais peut-être yàlla nii la ko bëggee rek. Hmm. sa famille accepté aussi nga nekk actrice de cinéma loolu tamit est-ce que da leen déranger wala. début bi moom metti woon na parce que ba tey ci millier bi rek dama am ay sœur yoo xam ne ñoom ñoo tax man jooyuma yaay dañ ma bëgg lépp loo xamante ni rek bu ñu xamee ni su ma fi rombetee danga mën nar a xool dañ may wax bu romb bëgguñu dara lu takk si man te tey ji ku sañoon kenn du wax sa doom lii wala la donc dañ doon bañ ay wax ñuy wax ci man walla dañ doon ragal lu bari daal dal ma comme que milieu bi ne dañ naan dafa xaw a grave affaire yooyu noonu loolu lañ ma doon bañal moo tax ñu xawoon a ragal et tout mais après comme que sama papa sama gars la du jéem a waxtaan mu naxanteeg sama sœur yi ma ñëw fii nekk ak sama maam nekk ak sama famille may ñëw samay tournage te xam nañ ci lépp li ma nekk ci saa yu ñu yeewoo ñu may woo xamal ma li ma war a def ak li ma warul def. d'accord seen xel dal ci man léegi ñoo ngi ci jàmm. D'accord. Nous avons accès à la relation avec Sir. Mhm. Depuis la saison 1, nous avons dit que nous sommes un couple. La saison 2, nous avons dit que nous sommes un avons aussi que nous suivre sur les réseaux sociaux. Tout le temps, nous avons des photos avec moi. Nous avons des snaps avec moi. C'est mm -hmm. une relation. Sir, moi, c'est ma chérie. C'est mon frère. Là. Euh, à part Lolo, comme vous avez dit que c'est une série, sama xabibi la. mais ni ngeen mel yéen ñaar seen intimité seen complicité. est que loolu c'est normal c'est normal ay nit bu ñuy liggéey ci dara surtout que man ak Sir comme ni ñu mel il faut ñuy ñuy jegeyante ñuy ñuy waxtaan day tax euh, bu ñu nekkee di tourner. day ñëw naturellement mais di kolow trop des fois mu uuf des fois ngeen fóonante sax. Eh. loolu sa copain dina ko nangu ah, wala. ah déedéet fóonante wu de. Hmm. mais ce couple. mais xam nga nit yi xamuñu soit bi. Hmm. Ñom nabu lañu xam xam sir. donc bu snap tay ji buñu dem ba nit yi du suivre Pod et Marichou moo tax ñu ñuy suivre parce que ñom nabu ak sir motax tax ñu ñuy suivre mais pas soit en personne donc dañ leen di jox ñom liñu bëgg ak liñu xam ñun man ak sir lañu xam donc dañ leen di won rek genre que ñu ngi nekk en couple et tout que moom laa bëgg.

teewul arrêté woo tout le temps yaa ngi di snap di Instagram tout ça. déggoo ñun pour bégal fans yi moo tax ñuy jug. kon sur nga gën a préféré ak sa copain. non waxuma loolu. Mm. nee naa la nit yi nabu la ñu xam xamuñu Souadou te sama copain dafa war a comprendre que ni moom Souadou lay génn mais ah, nan réagir yan scène lay def sa copain. parfois day xew kaas naan ma genre respecté woo ma da nekk fii di def lu la neex nit yi ma xam na lañ koy gisee benn instant tamit dëgg la moom moo fiir rek. mais li ñuy def dara nekku ci dañuy foo rek. d'accord mm-hmm. léegi ñu ñëw tuuti ci sa vie privée est-ce que mm-hmm. yaa ngi xalaat am jëkkër sa jëkkër nan la war a mel pour tax la. maa ah, ngi xalaat am jëkkër kay. maa ngi xalaat bu baax parce que jigéen bu nekk loolu lay ñaan yàlla am jëkkër sama jëkkër nan lay mel na nekk euh, góor bu jullite respecté ma nag bëgg ma teg ma fi ma war a teg xam nga bañ a bëri wax yam daal dit bu réglé bu responsable la mu doon sama jëkkër. d'accord ñu bëggoon xam say projet à part bi. ah man nag am ay projet parce que dama nek xalé bëgg teel am ay milliards du <laughs> coup xaalis rek laay lijjanti am naa yeneen projet xamna peut-être fi à quelque temps dina ci jéem commencer et tout ñëpp gis ko mais actuellement ma ngi lancer wu ci habillement bi ma ngi ci couture bi damay defar ay affaire yu bax nak pour góor yi ak pour jigéen ni aussi. d'accord et ça débute bien. balaa ñeu tagoto dañoo bëggoon nga wax ñu lo gëna regretter ci sa aduna. ba na nabu ba léegi ba ngay suwaadu ba ma gën a regretter ah xaw ma de parce que ma def ay toj toj wala def loo xamante ni après dama koy man nit lépp looy jóg pour def ko da nga def pas que da nga ko bëgg wala da def pas que def la donc su may def dara duma def loo xamante ni après dinaa toog di ko regretter dama koy assumer ma xam ni daf ma neexoon def naa ko et puis jeex na. mooy sa mot de xanaa di remercier ñëpp di leen wax euh, kontaan naa ci ñoom ñëpp parce que boo nekkee ci dara. que nga def lu baax que nga nekk que nga joué rôle bu baax wala rôle bu seytaane ko man <laughs> n'empêche di nga am ñi la bëgg am tamit ci la xaw a mere.